mais aussi njukkal li nga xam ni ñi jot a jaar assemblée ak ñi fa nekk ñëpp tey delloo nañ ko ko kenn ci ñoom euh, président du wadd jiite woon groupe parlementaire euh, ci jamonoy président Abdoulaye Wade jëflante ak euh, soxna soosu Marie Joséphine Diallo président ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci démb ak tey ngir waxtaanee soxna si indi aussi ay seede ak xëy na dellusiwaat tuuti ci jaar-jaaram ak li mu jëflante ak yéen bu ko defee xëy na ndaw yi fi nekk tey ak ña war a wuutu am lu nu ci jàng. bala ñuy dugg ci waxtaan wi ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi. waaw man maa lay maa lay nuyu Fatoumata di la di la dalal ci fi nga ñëw seet si ma pour ñu waxtaanee. ku génn àdduna Marie Joséphine Diallo. Euh, nga ñëw aussi ci bés boo xam ne bésu tiis la tey bu Sénégal am encore du dalaat ci kawam. mooy fukki nit fukki xale ak benn génn nañu àdduna ci ay condition yu jafe yu metti ci hôpital maam Abdoul Aziz Dabakh bu bu Tivaouane ñu ñaanal leen yàlla xare leen àjjana yàlla sàmm seeni waajur ak seeni mbokk dafa leen mbaa eh, guddal seeni fan metti na mais ñu xam ne dogalu yàlla la dogalu yàlla ci lu yàlla àtteel boppam du tere nag ñu seet fi yàlla aw ba ëgsi yàlla fi muy aw bari na mm-hmm. mais fi mu taamu pour ñoo ñu génn àdduna jàngat war na ci mën a am euh, pour ñu jël ci ay matukaay euh, dama ragal sax li ñuy wax ni te mënuñu ci bañ a wax euh, du dafa mel ni am lu ñu ko foogoon dafa mel ni am lu ñu ko waxoon dafa mel ni am na ñoo xam ne ñi wax nañ ko teg nañ ci seen baaraam tegaat ci seen baaraam tegaat seen baaraam te ñuy ay kilifa yu mag yoo xam ni wax na ci mais dafa mel ni wax yi jariñul dara wala mbokk lañu waroon def defuñu ko ba li amaat mënoon nañu def lañu war a def yàlla awaat fii mais yàlla aw na ci foo xam ne fii ñun dañu waroon def defuñu ko ba yàlla awaat foofu donc ñu leen di di masawu ñëpp di masawu képp ku dëkk Tiwaawan ak ci alentuuram di masawu xalifa bi parce que njabootam teel na ci jóg wax waxu sagesse Cheikh sëñ Mansour Abdoul waxu dalal waxu delloo nit ñu seen borom waxu muñ loo ñi mu dal nanguloo leen nattu bi leen dal yàlla na yàlla dégg yàlla na yow si nit ñi dégg mais ci ay jafe-jafe yu metti lañ jëm parce que lii ñëwandoo dafa bari lan moo ci suñu responsabilité lu ñu war a seet la lan mooy responsabilité autorités yi lu ñu war a seet la mais ñu ngi jëm comme ni ma ko waxoon ci juri bi ci ay situation yoo xam ne lëndëm na këriis guddi na xiit na amul melax toxoñ bët taxul nga gis ko ku ci toxoñ sa bët pour gisit dangay ngay sonal sa bopp rek gaañ sa bopp rek il faut nit ñi tey dal def li ñu war a def xaar ba yàlla leeral mais situation bu compliquée lañ jëm euh, loolu bu ma ko weesoo nag ma dugg ci li nga xam ne da nga ma ko laaj muy keneen koo xam ne kii si dafa génn àdduna muy Joséphine Diallo nekkoon ci assemblée bi di fi liggéey mais Sénégal miin nañ ko ci post bi mu mujj occupé génne ci àdduna mooy président assemblée nationale bu toog moom mu ngi sawet ba ñu defee ne sax xëy na bu soloon tenue militaire ñu ne garde corps la maanaam digganteem ak président bi ci seen jëfin dafa mel ni euh, malaaka bu ñuy gis la daal mu ngi ci wetam liggéey boobu nag euh, yàgg na ci man maa ngi ñëw ci assemblée bi en 1998 maa ngi fa génn 2012 2012 ak léegi mu nga fa ba bi muy génn àdduna dinañu faral di jox bi ma fa nekkee di di jotante ci ay loo xam ne lii dangay ngay jékki am ci jaaxle woo ko laaj ko en tout cas ku ku mënoon liggéeyam la ku yàlla baaxoon mu am liggéeyam mais nag boole woon na ci yeneen qualité justement ci qualité yooyu la ñu bëgg nga wax ñu li nga ci jàpp ba nga nekkee moom lan nga ci seetlu ba tey xëy na nga mun ko dénk ñi ko nar a ak ñeneen sax ñi nga xam ne ñi ngi ci fonction yoo xam ne euh, ci état la bokk ñu war a am xëy na melokaan boo xam ne euh, meloo nañ ko. waaw jàpp ne que bu fekkee ne am na ku ñu koy compareel fi mu nekk nii ci ñi nga xam ne liggéey nañu ci échelon yooyu ñu nekk ñoom. du ñu président de la république du premier ministre mais maanaam duñu ministre xëy na sax ñeer kenn ki amoon na qualité de ministre ci benn ay jamono bu fekkee da nga koy natt natt rek dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg da nga koy dendalee baa nga natt ko ci Bruno jaata Bruno sax dafa génn enam dem protocole mais Joséphine bi mu ñëwee dafa commencé suuf am na ay services yu mu jiite ba ëgsi fi mu ëgsi nekk ak ay nit aussi yu am xam-xam ci li ñu doon def mais moom bi mu ñëwee mën nga wax ne dafa effacé ñëpp c'est parce que ku xamoon liggéeyam la ku xamoon liggéeyam la ku ko mënoon la ku ko jàngoon la mais aussi ko bëggoon la loolu moom am na xam-xam yi mu ngi fi woon bi ma ñëwee ci assemblée bi da ngay ñëw lu bees te assemblée ñëw wax dem ak yëkkati loxo yoru ko il faut nga xam lan mooy ponk yi ko téye ak li nga bëgg a def noo koy defee ak lu ci yoon wax ak yoon bi fu mu jóge ak sax yoon bi ngay appliquer ci yeneen dëkk yi naka la demee lan mooy histoire am loolu yëpp boo ci ànd moom bu fekkee ne da nga ñëw pour xam-xam ci assemblée bi mm. boo nekkee ci wetam rek xam. yooyu yëpp daf leen ci daan gindi. mais mooy gindi président. Ah président mooy gindi règlement intérieur assemblée bi. nii nii nii mm. am na ñu fa fukki at fukki at ak juróom. Mm. yenn saa yi ñu daje lu ñu xamul yenn saa yi nga nekk ci biir assemblée bi am lu la dab doo xam naka nga koy régler donc loolu Joséphine non seulement daf ko miinoon daf ko xamoon mais yokk nag ci xam-xam bi li ko indi mooy moom mas dafa nekkoon secretaire ñi nga xam ne ñooy secretaire généraux yi nga xam ne ñoo am ci pays francophonie ak ci Afrique moom jiite na leen donc mais mu boole ci nag nit koo xam ne kii ku ku ordonné la c'est fini boo ñëwee boo ko laajee dara dina xam fu mu koy seet wala bu la joxee rendez-vous boo dellusee parce que du la mën a jox tout de suite mais dina toog defar liggéeyam parce que liggéeyam du tardé boo ñëwee mu génne ko jox la boo ko laajee mu wax la. Euh, jo dafa euh, nekk koo xam ne kii aussi li ko may liggéeyam boobu ba mu mën a jubóog ñëpp parce que moom président assemblée bi moo koy tànn président assemblée si boppam mooy tàmm mooy tànn secretaire général bi ak secretaire général adjoint yoon nag dina la wax ni lii la war a doon ci grade lii bii la catégorie la war a nekk te président assemblée nationale bi moo ilif assemblée bi jo moo ilif la partie administrative ci loolu député yi bari boo jëlee par exemple man 98 dafa nekkoon assemblée bu jafe bu metti parce que ñu ngi woon ci xeexu opposition bu mag bu daje ci biir assemblée contre le pouvoir en place d'ailleurs li la ko yoon mooy premier ministre bi fi ñëwoon dafa ñëwoon pour wax ne moom dafa ñëw pour réélire Abdou Diouf mu ne woon donc la bataille politique était était était était très très compliquée ak aussi ministres yi moo àndaloon yoo xam ne yi ay ministres yoo amoon ay capacité lañu amoon nañu xam-xam jàngoon nañu liggéeyoon nañu mais euh, Mamadou Lamine Loum liggéeyam dëgg dëgg dëgg moom moo ko waxal boppam c'était pour faire réélire Abdou Diouf boo ci nekkee nag yow nga nekk dans position wala nga nekk dans le pouvoir boo leen dajee ci Joséphine Joséphine du xàmmee kan moo nekk pouvoir ak kan moo nekk opposition. Ah non non xamu ko. naka la daan comporté c'est-à-dire comportement ci li ñu koy liggéeyloo. c'est li ko yoon teg. lu ko yoon teg rek Joséphine tegoon na ko. lu ko yoon tere sore na ko ba nga xam ne digganteem ak nit ñëpp amul bari na man mën naa la wax ne suma xarit la mais bu ma nee suma xarit la man kenn rek juum parce que bi may jëkk dugg bureau defe naa Abdou Fall la àndal te ba bi ba bii nii bu ma koy woo nii bu ma ko doon wuy dama ko ne allo mu ne Joséphine président comment vas ma ne ko allo la sœur de Abdou Fall mu ree dama noo la sœur de Doudou Wade pour te dire dafa nekk jigéen boo xam ne bii bu bu ouverte woon yemale ñëpp ci liggéeyam et très pédagogue léeg-léeg nga nekk ci benn situation parce que assemblée bi euh, dafa nekk euh, daje ay nitu politique dajante ci wax xuloo jàppante ci assemblée. Ah, dafa am tàng jër. Euh, dafay dafay am. assemblée bi yenn saa yi mu nekk en paix yenn yàq mu nekk tàngaay bu jër jërë jërë mu nekk ak ñu nekk ay séance yu jafe-jafe jafe yoo xam ne mm. séance yoo xam ne yi bu fekkoon ne amoon nañu fital xëy na sax ñu jamante mais heureusement ay dóorante ak lu ne na fa ah, waaw waaw am am na am na am na dafay am mm-hmm. doo day am da ngay dóor baa ñu dóor la ah. Ah, loolu mënuñu ko bañ ci assemblée bi mm-hmm. ñu koy jéem a am loo ci xalaat nit ñi xeex nañ ci jàkk mm-hmm. xeex nañ ci église xeex nañu pale de la république. kon fu ay nit moo mel noonu. waaw ñuy daje surtout bu amee passion. donc loolu euh, nit ñee ko réel mais xeex yi fi xam mu bariwuñu mais am na. Mhm. situation yooyu Joséphine man taxawaay la si am. situation bu bu day nekk day nekk espèce su benn régulateur gis nga régulateur yi nga xam ne moom la ñuy teg ci machine yi pour bu courant bi ñëwee do ak doole mu téye ko. mu freiné ko hmm. waaw moom loolu lay wekk. amul amul ci bari na. d'abord ci biir saal bi Joséphine mën na la bind yónnee la këyit ne la président calme président calme-toi député waaw lay wax mën na am mu am benn situation bu am ñu war ko régler mu jóg fexe ba régleel ko ko dans dans dans dans dans la plus grande correction ci huissier yi lay woo dina am ku ñëw sol lu bon. ci député yi. waaw mu député bu yéeg ak ay carax yu tilim. mu wax ak moom gentiment. fexe ba ñu delloo ko. te du ko dépassé du ko gàcce. non non yenn saay yi sax doo yëg. Hmm. yenn saa doo yëg. jigéen mën na ñëw sol lu mu warul sol am na fi. day yónni ñu wax ko nangam ak nangam ñu régler loolu. Euh, bu ñu paree dina la woo ne la ndax nangam lii bi nga defee nii est-ce que man dama yaakaar ne dama yaakaar ne li muy wax dafa yaakaar loolu mooy am mais yow da ngay am benn mauvaise lecture. mu delloo la ci place indiwaat la tey loolu ba nga tey. mu bàyyi la xool lool la wax loolu la ne lii laa xalaat lii laa xalaat yow ba nga jàpp ne effectivement yow beneen yoon am nga arme boo xam ne lii bu la dalatee doo aw ci yoon boobu. elle était pédagogue. waaw ah, dafa mënoon jàngale. dafa mënoon jàngale. Mm-hmm. Eh, dafa amoon tey mais aussi dafa amoon yar. Mm. et du pour particularité ak ak ak ak ak euh, Bruno. moo day nekkoon nitu jàngu nekk ak jullit yu bari ñu respecté leen c'est extrêmement important c'est extrêmement important man dama tàng ma liggéey samedi ak dimanche dama tàmm liggéey guddi assemblée bi ñu ngi may dégg ñoom dinañ xam loolu ba daan naa wax sax suma secretaire ak suma assistante yi bu guddee bu ñuy wàcc bu ñuy jël ascenseur bi de peur que ascenseur bi kale te kenn du fi nekk hmm. mais boo daan ñibbi booy génn boo gisee benn lumière xamal ne Joséphine la. moom tam heure yooyu fa la ko daan fekk. waaw yenn saa yi boo ñëwee liggéey si dimanche wala dara boo liggéey dégg yëngatu rek Joséphine la. Mm-hmm. am na benn jour ma liggéey si samedi ou dimanche dimanche gendarme bi nekku fi. le général sec moo nekkoon général gendarmerie mas na nekk après ministre de l' ñëw en visite ci assemblée bi maa ngi sama bureau gi mu dugg ci assemblée bi jàll ci bunt bi gendarme bàyyi mu dugg wër wër wër dem ba ci chef chef de service foofu fekk ko fa xam nga <laughs> bi muy génn kan ak kan kan ak kan a ko gis hmm. man ak Joséphine ah parce que gendarme moo ñëw sama bureau daw si parce que patron bi nekk ko fi man ma dab général bi hmm. après ñu waxtaan waxuma ko dara après ñu waxtaan général bi mu may dégg général Seck mais man ak Joséphine rek ñoo yëgoon loolu parce que ñu ñoo nekkoon ci assemblée bi saa yoo ko soxla di ko jot. pourquoi ça wax wax naa la yar bi. mais xamoon naa ne amoon na ñaari passion scoutisme ak église bi. donc yooyu yëpp bu mu ko boolee moo tax mu nekkoon une personne très écoutée te nit ñi dinañu doon jaabante di dem ci bureau pour jëlee xam-xam walla seeti loo xam ne lii euh, daf la réer et saa yu n'importe ki nag bu fekkee ne ci sa liggéey am na sa kàddu walla sa wax surtout bu fekkee ne ci ay problème mu jaar ci yoon ya jël règlement intérieur am foo aw pour am nangam boo paree ci benn geste bu gàtt wala boo paree boo leen dajee dina la woon ci ay affaires yu gàtt sans nekk maîtresse sans nekk kuy jàngale wan la ne bërk démb de sa yoon bi baax na mais du apprécier du joxe jugement de valeur hmm. mais dina wax ne tu as évoqué le tout un point important du règlement intérieur nga xam ne aw nga ci yoon wala ci premier jour yi bi nga xamee dangay da ngay confondre question préalable ak motion préjudicielle nga jaar ci moom mu wax la ñaar yooyu xaw na nuroo mais lan mooy différence bi mais aussi lan mooy njeexalit bi waaw ba ci ba ci ba ci sa toogaay sa taxawaay ci biir assemblée bi mm-hmm. sa sa Eh, écharpe bi ngay takk lu nekk daal. Hmm. Joséphine amoon na ci lu mu doon nekk nit ñi. alors beneen qualité yi mu am mooy moom du amuloo amuloon monadité. Hmm. waaw elle du puudaru ba kanam gi niin <laughs> du diwu ba niin hmm. du puudaru ba kenn du ko xàmmee rouge à lèvres bariwul ci yaramam yéreem dafa sobre léppam sobriété la est-ce que daan na dox lu bari ak di fréquenter ay nit xaw ma ci dara mais xam naa ne à chaque fois que membre du personnel amoon na lu ko dal dina ci taxaw yenn saa yi doon na taxawu nit ñi man xam naa ni man ci ñi ma fekkee doon na taxawu nit ñi auprès du président Pape Diop et auprès du président du Seck ci ay questions yoo xam ne ay nit yu am soxla la wala yu am problème ci assemblée bi. loolu man wóor na ma. parce que ñaar ñooñu ñaar ñooñu xam naa leen. xam naa xam naa Pape Diop bu baax ci liggéeyam. ci ci ci regard bi mu am ci personnel am d'ailleurs personnel assemblée bi li ñu am ci Pape Diop amuñu ko ci keneen. donc ah. ba ñu fa jógee sax lu bari dem mais loolu yëpp pour am ay cadeau de Noël pour les députés. Mm. parce que loolu aussi bi ñu koy dox Pape Babacar Mbaye moo ko doon dox. Mm. ak man mais dañ ci am conseil Joséphine. Ah. te bu la conseiller dara ci ba pare. Mm. pour ne pas être dina ko wax patron. ah ne ko diw de wax naa ko lii. waaw. d'accord waaw. sa gaañ yi jaaxle nañu de président ñoom de ñu ngi xool affaire cadeau de Noël parce que boobu temps député yi dañuy ñëw di joxe cadeau de Noël. Mm. mais dañ ko jox personnel assemblée bi. d'accord Pape Babacar la doomam interpellé. ne ko papa yaa ngi joxe cadeau te joxooñu posé ko question bi il était gênant il était dans une situation de maladie mu ñëw wax ma ko ñu waxtaane ko ñu ne dem seeti Joséphine mu yedduñu wax ñu ndax mas na am nangam d'histoire mm-hmm. alors tu as vu donc moom euh, amul lenn loo xam ne nit dina ko construire ci assemblée bi ci lu baax mm-hmm. te moom du ci taxaw mm-hmm. dafa amoon taxawaay dafa amoon euh, euh, yëg ci personnel bi personnel bi ñu bari ñu bari euh, war nañu mën a seede loolu mm-hmm. am na ci ñoo xam ne sax ci jigéen ñi principalement seen formation ci biir assemblée bi pour ñu gën a jëm kanam Joséphine joué na mm-hmm. man suma secrétaire laa gën a xam bu ma ko doon da ngay am sobriété Joséphine mm-hmm. alors donc euh, yàlla moo ko moo ko bindee noonu mu nekk nag koo xam ne kii amoon na ay relation aussi particulière pour ñeneen ñi alors euh, yenn saa yi ay député di mën ko am soxla yenn saa yi sax ay anciens députés am soxla mu dox ci pour ñuy jàppale leen dafa xamoon euh, situation assemblée bi xam aussi yeneen situation yi nga xam ne yeneen assemblée yi la euh, ba nga xam ne am na ñépp daal amel nañ ko respect. nañ ko respect ak njukkal certainement alors ñu jeexal ak yow lan nga dund lu particulier ak Joséphine loo xam ne tey xëy na boo ko xalaatee rek sa xel ci loolu lay dem. bon écoute xam nga dina jafe. nga wax dara parce que nii dina def dara aussi euh, il faut aussi am courage pour nettali ko. Mm. yenn saa yi da ngay us pour gën nettali ko. rusuma nettali xeex rusuma nettali nangam rusuma nangam mais mais mais dama ñëw di seet ci assemblée bi jéem a am benn résumé di film bi am ci intervention bi ma def après résolution bi nga xam ne mooy résolution d' accusation bu Idrissa Seck dama jàppoon ne man maa ngi ci yoon parce que résolution d'accusation bi génnul noonu inspection générale d'État ñoo def ay rapport yu bari wax ne lii ak lii ak lii ak lii moo am ci Idrissa Seck sur les chantiers de Thiès loolu kenn nu ko weddi nit ñi dañuy xol ne rapport inspection générale d'État lan lay jariñ di ko laaj naan amul njariñ man gis naa njariñ li man du point de vue parlementaire parce que loolu moo taxoon ñu defar résolution d'accusation bi. d'accord. alors seen benn journaliste dafa bind wax ne Doudou Wade dafa doon fecc ci assemblée bi ma dem jëli film bi di ko jëli pour ñu génneel ma ko te il faut ngaaw ci moom. Mhm. bi ma ko waxee lu ma jëm mu Doudou c'est par la peine ça vaut pas la peine les gens savent que tu n'as pas dansé et puis Doudou qu'est-ce qu'il que reprochons pour quelqu'un qui danse bàyyi te comme euh, wax na dëgg jàpp naa ne wax na dëgg parce que euh, ñaar ñi ci yoo xam ne kenn koo xam ne ki warul bañ fecc parce que bu tugul ñu fecc mu nekk fecckat <laughs> alors dangay dem ay moment yoo xam ne yii dangay dangay dangay tàng sax mu yëg ne tàng nga séance bi pare wala ñu mën a duudu moom daal yeddkat la woon. waaw moom. elle trouvait les mots da doon am kàddu moom moom moom moom sérénité assemblée bi. Hmm. dafa mel ni moom lañ ko dénkoon. Hmm. d'accord police assemblée bi président bi moo ko yor. Hmm. la police de la salle. mais dafa mel ni sérénité bi. moom lañ ko joxoon Joséphine daf koy préparer. <laughs> wala surtout quand il y a des séances yi nga xam ne dañuy ñëw xam nga xam ne séance bi séance bu tàng la tey. parce que y a des lois qui sont alors foofu da ngay jàpp ne moom ku ku yàlla baaxal la président yi fi nekk nag yëpp euh, amel nañ ko njukkal parce que président assemblée ah ñëw rek ñu def le président assemblée nationale nii te yàgguloo ci procédure assemblée bi bés bu nekk boo moytul buñ la buñ la bàyyee nga juum njuum tey mu ngi gën a bari bu Joséphine nekkul mm-hmm. que bu fi nekkee da ngay toog saa boo ko xamee. nga gis assemblée benn affaire bu am li ngay jëkk a wax. da nga ndax Joséphine yëg na lii. ci ko xam assemblée. waaw man je me suis de question questions. de sur des moments yoo xam ne fekk ma sax dama koy toog ni di ko xool. mu am mu am lu am ma ne leen lii est-ce que Joséphine yëg na ko. kon amoon na rôle bu am solo ci assemblée nationale. non non moom moo doon moom moo nekkoon. moom moom moom moom moom moom moom moom bu jengee rek wala mu yàq rek séance bi yàqu bu fekkee ne am nga président bu ko président yi dinañ ko déglu dina am dina yoon mais président yi aussi yenn saa yi dañuy non seulement dañuy dañuy xaw a absenté mm-hmm. mais yenn saa yi aussi dañuy am des positions politiques ah. dootuñu am position équilibre bi nga xam ne mm-hmm. ñoom la ñu war a nekk waaw dafay am sax ci assemblée bi euh, ci bi mujj nii ba am na ci lu mu bari lu mu am président yi ak nga gis ne président bi tàng na. tàng na ci kaddu tàng na ci waxam tàng na ci toogaayam tàng na ci yëngutoom loolu li mu dal yeneen président yi bariwul. d'accord. mais ce qu'il faut retenir maintenant mooy que assemblée bi defal nañ ko loo xam ne lii il faut rendre hommage il faut remercier le président Moustapha Niass. parce que bi ma déggee ñu wax ma Joséphine dee na maa ngi doon xalaat lu nekk euh, Cheikh Oumar Sy moom ma jëkko woo loolu Moustapha Diakhaté moom woo am njaaxle bu garee garaaw a garaaw ci demu Joséphine euh, tout de suite sax am na ñoo xam ne ñu ngi naan kan moo koy remplacer xam nga ku dee kenn suula ku ngay xalaat ku ko remplacer mooy jaaxee dugal na la et effectivement la question était pertinente lu ñu waroon laaj la ñu waxtaanee ko après ci ëllëg sa Cheikh Oumar moom woo ne ma dafa bëgg ñu seet benn séance boo xam ne bii ñun député yi nga xam ne yëpp nekkuñu en exercice day ñëw ci assemblée bi dem ci tribune bi toog fa seetaan en hommage à Joséphine Cheikh Oumar wax na loolu. alors après ñu ne dañ koy defal benn foofu lañ koy rendre hommage foofu. alors seet naa seet seet seet parce que lu nekk aussi da ngay seet li nga commencé ndax mas nañ ko def ndax masuñu ko def ndax ëpp na ndax ëppul yenn saa yi nga juum mais suma xel li mu jëkk dem ci li ma gis foofu mooy Senghor parce que su ma fàttaliku Lamine Gueye gëw ma ne xaw ma ndëgam taxawal dañ ko foofam déet wóoruma du ma wax lu ma xamul xaw ma xaw ma wóoruma wóoruma mais xam naa ne sengoor moom foofu lañ ko teg ci kaw famille nekk fa ak Moustapha Niass d'ailleurs alors euh, mais que président génnee organiser li mu organiser ci biti defar li mu fa defar ci ay tànt def fu ñuy teg Joséphine moom mu ñëwal boppam moom Moustapha Niass mu ñëwal boppam woo président yi nga xam ne nekkoon nañ fii ñu ñëw mu wax ne Mamadou sekk ñëw na Abdou Khadir Sissoko ku baax ku yàlla may ku am yar ku tey def naa ak moom 98 ba 2000. def naa ak moom aussi période bi nga xam ne bii moom dafa nekk président assemblée nationale Abdoulaye du nekk président de la république mm-hmm. majorité bi nekk biir assemblée nekk une majorité socialiste. gouvernement bi nekk un gouvernement libéral. loolu loolu moo ngeen tuddee yéen cohabitation. mais après mais loolu du wax bi. alors ba pare mu wax président Moustapha Niasse ne woo na Abdou Khadir Soko woo na ko ce matin ne ko dafa nekk Paris moo tax ñëwul. loolu moo lay woon ne itte bi itte bi. itte bi. ak toogaay bi Moustapha Niasse toog ak ñooñu mu woo ñëpp moo lay woon ne Joséphine mérité na woon loolu. donc c'est première. c'est une première boo xam ne war nañ ko mën réfléchir ci euh, notamment membre personnel bi pas membre personnel bi yëpp mais ci en tout cas les grands hommes de l'Assemblée parce que notre Assemblée nationale a eu de grands hommes ak lu ñu mën wax nag cette Assemblée nationale depuis l'Assemblée territoriale dañuy am ay députés yoo xam ne Sénégal dañ fi jógee dem Palais Bourbon def fa ay députés yoo xam ne toujours ma fàttali ko Abbas Gueye Serigne fàllu moo ko bind lettre di ko remercier di ko ñaanal ci taxawaayam te boobu mu nga Palais Bourbon France ni ñuy critiquer député yu bonul noonu la amee ay député yu baax mais surtout na bu ñu nekkee ay député en exercice waxuma ancien député waxuma affaire ancien député mais en exercice am dévouement ci assemblée bi am fu ñu àgg ci assemblée am fu ñu àgg seen liggéey ba nga xam ne c'est de notoriété xamee nañ leen mais bu boobaa euh, dina jar ñu réfléchir ci geste bi Moustapha Niass def ñu war ko mën a copier donc Joséphine ci loolu rek euh, de di war na mën a nekk un déclic. waaw loolu donc euh, laa jàpp ci moom. Mm-hmm. et may koy jaale ay mbokkam. di ko jaalee son jeune frère Robert Diallo moom itamit noonu la mel dafa am dafa am yar il a été directeur général de l'IPRES donc di ko ñaanal njabootam yëpp di ko jaalee assemblée bi yëpp nag principalement le personnel administratif et principalement toutes ces femmes qui sont au secrétariat parce que ñoom aussi euh, seen liggéey euh, seen coow bariwul mais defe naa Joséphine moo tax donc yàlla loolu mooy li nga xam ne Euh, loolu laa mën a wax ci dernière question bi nga xam ne moom laa posé moom nga ma posé. Mm-hmm. jërëjëf président amoon nañu mbégte lool euh, taataan sa seede ci Joséphine Diallo ngir wone taxawaay bi mu amoon bu ko defee xëy na mu nekk déclic ci ñenn ñi ñu mun a am lu ñu jubbantikoo te jëlee ko ci Joséphine ndax liggéey bu am solo euh, bi nga xam ne war na leen teg nañ ko seen kaw mais aussi taxawaay bi ñu war a am surtout ci institution yu mel ni assemblée nationale lu bari di fa di fa am. moo tax man tamit may may profité di la di la. di la gërëm di la sant ci déplacement bi nga jóg pour def rien que trouver ay témoignages si Joséphine di la wax ne di la ci gërëm mais di la ci gërëm aussi au nom de tous les journalistes mais principalement euh, jigéen ñi nga xam ne ñooy def sa métier euh, jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci presse bi dañu am rôle boo xam ne bii role bu rëy rëy la ni Joséphine nekkoon kuy pacifier noonu ngeen war a mel moo tax ma lay gërëm ci yow ak képp koo xam ne kër journaliste bu jigéen ga nekk ci liggéey te di la ñaanal yàlla nga yàlla def ci yow njub yàlla def ci yow aar la jubal la parce que dama bokk ci ñi nga xam ne dama jàpp ne euh, jigéen ñi nekk ci press bi ñu ñu war a jàppale lañu ci seen liggéey xaw ma nag ci ban forme xaw ma naka lañ koy defee parce que loi bi loi bi la règlement bi règlement bi la mais boo gisee benn journaliste boo xam ne bii dafa mën métier am di liggéey xëy suba ñu ne am na doom mais nekkoon benn pièce charnière ci liggéey bi ñu war ko sàggane bañ ko faciliter liggéeyam te mu yore ñaari doom wala ñett seex yore jëkkër te mënuñu ko faciliter am programmation ak façon liggéeyam ba dàq di ko ci fekk dafay compliqué defe naa ne bu ma ñemee woon damay wax ne manque d'équité mu ngi ci mais aussi ñu ñu war a protéger la surtout ci moment bi nga xam ne bii dafa am lu bari lu ci évoluer il y a vingt ans vingt cinq ans nit jigéen daawul yor caméra léegi di nga jigéen bu yor caméra yore micro dem boot saagam dem def li muy def dellu si avec le même matériel ñëw liggéey si donc loolu dañ leen ci war a dimbali ngeen dimbali ci seen bopp dimbali seen bopp je pense que war ngeen mën a trouver sama xalaat du discrimination mais seet lan mooy problème mu ak lan mooy solution wu liggéeyu femme dans la presse parce que loolu war ngeen ci mën a indi solution mais loolu solidarité lay doon en tout cas euh, maa ngi leen di maa ngi leen di convier ci loolu mm. jërëjëf président kon mbokk yi dañuy wéyal démb ak tay bi gannaaw président Doudou Wade mi nekkoon ci assemblée nationale depuis quatre-vingt-dix-huit dañuy euh, ànd ak euh, actuel président de groupe parlementaire bu benn Bokk Yaakaar muy Aymérou Gningue moom itam euh, mu jëflante ak soxna si ñuy waxtaanee tey soxna Marie Joséphine Diallo génn àdduna wante nag li ko wutale xëy na ak ñeneen ñu liggéey ci état bu Sénégal mooy taxawaay bi mu amoon ak ràññeeku aussi bi mu amoon ci liggéey. liggéeyam ak euh, farlu bi ak lépp loo xam ni ay seede yu rafet la yu jib keroog ba ñu koy delloo njukkal président Aymerou ñu ngi lay dalal yow itam ci démb ak tay bi gannaaw président Doudou ñu war a waxtaan ak yow si soxna Marie Joséphine Diallo bismillah waaw jërëjëf euh, Fatou euh, Marie Joséphine Diallo wax ci moom dina ma yomb parce que soo nekkee secrétaire général u assemblée nationale ginnaaw président assemblée nationale ki ngay gën a jëflanteel wala ñi ngay gën a jëflanteel mooy président de groupe yi parce que assemblée nationale dafa nekk kër goo xamee ni boo génnee li règlement intérieur bi wax dafa ubbi ay bunt yoo xamee ni lu président groupe yi waxtaane ak kiy représenté non inscrit yi bu boobaa bu ñu ci juboo dañuy jël règlement intérieur bi teg fële jël li nga xamee ni ñoom juboo nañ ci ñu doxale noonu loolu moo tax président de groupe yëpp dañu nekkoon ay nit yoo xame ni dañuy wax di jëflante ak Marie Joséphine Diallo mu nekk jigéen boo xamee ni euh, ku ràññeeku woon la ci xam-xam d'abord li mu doon def daf ko xam daf ko xam mu nekk tam nit koo xamee ni li mu doon defanteeg nit ñi yépp ci dëgg la koy teg dëgg la koy teg daa maanaa gaa dina waxtaan dina jéem a leeral waaye bu dëgg jotee nag mu taxaw mu ne lii mooy li nga xamee moo mën a nekk lii mooy li nga xamee moo mën a am. ah nit ku nag boo xamee da ngay àtte dëgg te li ngay àtte nga teg ko ci xam-xam te du tee itam ki nga war a waxtaanal diisool nga diisoog moom su la yàlla mayu jikko yu mel noonu nga nekk assemblée nationale 1978 ba tey di yéeg tàmbali parce que xëyul xëy rek nekk secrétaire général dafa am fu mu jaar. doon liggéey ci assemblée nationale ba yàlla def mu nekk secrétaire général nga xamee ni am na juróomi président assemblée nationale yoo xamee liggéey na ak ñoom wax dëgg yàlla tey su wàccee liggéey boobu seddee lañu ñu mën a def ci moom. mooy seede bi mooy am na xam-xam jàmbure na liggéeyam teg na ko ci yoon boole woon na ko ak masla boo xamee ni du tax mu xëtt charte yi ba pare nag nekk jigéen boo xamee ni. ku mënoon déglu doomu aadama yi la. parce que defe naa ne bu dul man sax nga xamee président groupe la député bu mas a ñëw ci moom wax dëgg yàlla dafa lay ubbil ay buntam déglu la. la mu xam ci conseiller la. la mu xam ci digal la mu defal la ko pour que nga bañ a euh, euh, euh, nga bañ a wàcc yoon. ah loolu mu nekk woon Sénégal tam noonu la nekk bitim réew. parce que assemblée bi dafa am lu ñuy wax les groupes nationaux te groupes nationaux yooyu dafa bare. ci euh, assemblée panafricaine wala assemblée boo xamee ni francophonie moo ko bokk wala assemblée boo xamee ni union internationale des parlementaire ñoo ko bokk te moom dafa nekkoon ki nga xamee ni loolu yëpp ci loxoom la nekkoon mu téye ko ña doon jëflanteel ci wàllu bitim réew itam nangu xareñam nangu xam-xamam ba jàpp nañu ni ni mu nekkee woon euh, yoroon këggu yi fii ci biir assemblée nationale. noonu la yore woon tam kàggu yi nga xamee ni moom loolu moo ñu boole woon ak waa bitim réew ci wàllu doxalinu assemblée nationale yi nga xamee ni moo am ci àdduna bi yëpp. alors lan nga ñu mun a wax ci taxawaay bi mu doon am surtout ci jamonoy plénière wala moment yoo xam ni assemblée bi dafa doon yëngu lool parce que ku nekk xam na ni assemblée ay woy politique ñoo fiy daje yenn saay xëccoo bi tar yenn saay sax yu jug ba xëy na ay jàppante am fii Marie Joséphine ban taxawaay la doon am surtout si législature bi ñu nekk. waaw comme moom fonctionnaire la du woon député. dawul dugg ci coow loolu. waaye jàppal ni moom lan mooy rôle dëgg-dëgg mooy fàttali président. assemblée nationale bi nga xamee ni mooy présider séance bi nga xamee moom moo yore police su séance bi parce que moom rek président assemblée nationale moo mën a wax ni nañu arrêté lii wala mu gis kuy perturber mu ne nañ ko téye nañ ko génne Marie Joséphine nag liggéeyam doo ko gis mukk parce que liggéey bu liggéeyu suuf la li tax muy toog noonu ci wetu président assemblée nationale mooy jamono bu nekk mi ngi naan ko président loi bi lii la wax président règlement intérieur bi lii la wax président lii bu masaan am nii la ñuy def donc da ngay jàpp ni képp ku toog foofa di présider te Marie Joséphine nekk sa wet da ngay xam ne lépp loo xam yaa ngi koy doxal da nga ciy diisoo moom boo ci diisul ak moom itam na nga xam ni la ngay wax wala nga koy def ñaaree moo la koy xelal bindal la ko yónnee la ko pour di la fàttali parce que doomu aadama dafay fàtti mm. te moom nag lim fi nekkee woon mooy delloo si nit ñi ba nga xamee bu ñu bëggee jàdd yoon wi rek mu ne déet du demee nii ñaar nag moo am dafa am loo xam ne dañ ko bind mooy li nekk ci règlement am loo xam ni pratique parlementaire la tudd mooy li ñu yàgg di def te ba ñu ko daan def yàqul dara loolu nag boo fi yàggee am expérience yàgg a fekke dafay bari loo xam ni fekke woon nga ko te boo ci waxee rek dañuy xam ni lii nga wax dafa méngoo ak li nga xamee bu ñu ko defee dina indi jàmm ci biir assemblée nationale. kon mu nekk mhm. mu nekk jigéen joo xam ni ñëpp la doon waxal. xam nga tey président groupe parlementaire majorité la mais jàpp naa ni seede yi may def président groupe bi nga xamee ni moo nekkoon opposition mën na ko def ci moom. Mhm. jàpp naa ni comme non inscrits yi ñoom dañuy am ku leen di jiite weer wu nekk. Mhm. ñoom itam boo leen woowoon ku ci mës liggéey ak Marie Joséphine Diallo dina la wax lii ma la wax parce loolu. mooy témoignage bi nga xamee mooy seede yi nga xamee ni ñun ñëpp dañu ci juboo parce que nit ki tam nag ni mu mel il faut ngaw tudd ko rek moom kenn mënu ko tuddal leneen te nag dafa am lu may wax moom dafa am li tubaab di dute discrétion mooy di def te nëbbu te doo feeñ man ci sama wàllu bopp def naa juróomi ak ci assemblée nationale mosuma gis kudd dugg ci biir gémmiñu Marie Joséphine te xam nga dina lekk dina naan. <laughs> Ah waaye daka dafa nekkoon nit ku discret ba nga xamee loolu su koy def sax. day tëju buroom ba pare ba mu pare mu soog a génn waaye man mosuma gis mukk ma ma Marie Joséphine muy sàq mi. Hmm. yàlla ma def naa juróomi at ak moom fii mosuma ko gis muy sàq mi. loolu nag dafa bokk ci discrétion ak ci yar waaw discrétion bu mag la yar googu itam président Doudou Wade mi njëkk a jox kàddu sànq wax na ko mais si diggante député yi yenn saa yi xëy na daawul ñàkk mu jox ci ay jéego bu fekkee yëfi jaxasoo woon na wala daawul dugg ci ci ci fànn yooyu non bu amaan coow nga xamee ni ci groupe yi dañu daan dem bureau par exemple man ma nekk fa président groupe parlementaire opposition nekk fa non inscrit yi nekk fa parce que surtout loolu mi ngi daan am bu ñu nee dañu am débat organisé bu ñu amee débat organisé nga xam ne dañu war a taxaw waxtaan ci temps minutes yi moom nag daawul dugg ci débat bi daf ñuy déglu ñu waxee ba wax li ñu bëgg mu ne déet daawul demee noonu de nii la daan demee mooy li ma wax léegi ci pratique parlementaire dafa am règle yoo xam ne dafa am ci assemblée nationale yépp yi am ci àdduna yoo xamee kenn bind ko ci kayit xam nga euh, droit parlementaire mooy droit boo xamee kenn du dem ci école di ko jàng da ngay ñëw fekk règlement intérieur nga guux ko ba xam ko ba xam li ci nekk yépp xam jurisprudence bi mais li ëpp solo mooy nga xam li ñu tuddee la pratique parlementaire mooy lii bu amee ci réew sàngam naka la ñu taxee woon ba lijjanti ko su ko defee nga indi yooya ba yooya mën la permettre li nga bindul sax nga xam ni xaatima ko boo ca tolloo te muy jafe-jafe bu bees nga seet nooy def ba ba génn ci moom daal conseillère la woon nañu jàpp ni amul kenn koo xamee nekk nga fi yor ndomba tànk ci groupe parlementaire te moom nekkul sa conseil wax la nii la ñu war a def amul benn député bu fi nekk bokk ci groupe national di tukki di dem ci ay assemblée yeneen di fa yóbbu sa xam-xam wala nga fay def séance te moom mi daaw la conseil digal la wax ni boo demee na nga toggee nii wala na nga waxee nii nit la koo xawee ñàkk nañ ko ah wax dëgg yàlla mais nit ku amoon njëriñ la ci assemblée nationale bi loolu nag président sax yi nga xawee ñoom la liggéeyal ñoo ñu ko gën a mën a wax ñun président groupe parlementaire yi waaye nag ñun président groupe parlementaire dañ ci am cër ak moom lu muy def bala mu koy def il faut mu waxtaan ak ñun bu ñu waxtaanee ba pare rawatina nag président group bi nga xamee ni da nga yore majorité parce que mënuma pousser mètre te moom waxul ak man moom itam mënu la bouger mètre te waxul ak man ba ñuy juboo bu ñu juboo nag lu ñu bëgg a doxal ñu doxal ko. ni ñu ko defee ak président Doudou Wade yow particulièrement lan nga dund ak Marie Joséphine depuis bi nga nekkee ci assemblée nationale loo xam ni lu particulier la euh, lu lay marqué certainement pour toujours. waaw li li li ma la wax léegi mooy li ma jëkk a mooy damaa xam ku ne waaye xam nga boo toogee nit juróomi at ngeen di yendu xañ na sax tegu ngeen fi ba wi presque ba fanaan fi te soo gis muy sàq mi ah man de loolu de man gisuma ko feneen loolu marqué na ma ci moom moo tax maa ko wax man maa ko wax ba secrétaire général adjoint tey bi nekk par intérim mhm. keroog ba muy def discours sax dugal na ko ci discours bi daf maa tuddul mhm. waaye loolu man maa ko wax. parce que nit dafay am lu muy ràññee xam ko. xam ni lii ku yàlla mayul daal loolu mënoo ko. ma ne mosuma ko gis muy naan ndox mu gàllax ndiku rek mosuma ko gis loolu nag man loolu daf ma marqué. loolu ci wàllu yaram la. xañ na ay waajuram ñoo ko yaree noonu. ak fi mu bokk joo ko yaree noonu. mais ci wàllu liggéey. li ma gis mu marke mooy saa bu ma demee ba nga xamee ni man ànd ak suma xët-xët parce que nag assemblée. këru politique la ba bëgg ni non lii laa bëgg a def parce que politiquement ñii dañuy fonto dafa may wax ni ma ah déet ay meru règlement intérieur lii la wax kon moom dafa ma doon delloosi delloosi waat ma ci li règlement intérieur bi wax su ma waxee ni noonu nii laa bëgg a defee mu ne ma déedéet boo ko defee tam da ngay jalgati yoon mais boo bëggul a jalgati yoon lii la règlement intérieur te jàpp naa ni jamono bu ma ko waxee rek ma jox ko dëgg fekk si ko ci li mu nga xam ne damay bañ a topp sama xol. parce que suñu sëriñ bi sëñ Babacar si moo ko waxoon président Senghor. ni ko euh, boo bëggee yor nit ñi radiyallahu taala anu sëñ Babacar. ni ko euh, bu ko xam yow dong bu ko def yow dong bul ko sañ yow dong. mu teg ci ni ko te sa xol saa bu bëleeg sa xel mu ne ko na sa xel daan waaye sa xol bu mu daan mukk Marie Joséphine Joséphine bi nag da daan tax saa bu sama xol bëri ak sama xel mu delloo si ma ni ma déet règlement intérieur bi lii la wax fexe ba sama xel daan sama xol. alors euh, si sa xalaat lan la bépp liggéeykat fonctionnaire euh, rawatina war a jàng si Marie Joséphine selon ni nga gis mu doxalee ak xëy na li jaar-jaaram wone bi mu génnee àdduna notamment waaw xam nga dañuy wax soldat ñu ne soldat daal militaire dafay dégg ordre. mooy day ñëw ci kër gi ñu ni ko nii la demee kii mooy sa chef sa chef kii mooy chef suñ la nee lii la ñu bëgg a def yow da ngay dem exécuter fonctionnaire mooy soldaaru civil normalement saa bu ñëwee dafa am code boo xamee moom moo ëmb code déontologie bu fonctionnaire ni ko nii la war a taxawee nii la war a defee dafa am supérieur hiérarchique bu ko wax lii dañu dellu ci fondamentaux yi mooy fonctionnaire bu nekk que la ilif bu la waxee ni lii lañu war a doxal yow doxalal loolee mu la wax surtout kooka dalaa ñimewu la wax loo xamee dala koy imposer te dëppoowul ak yoon kon loolu bu amee rek problème jàmm di ñooy li ja jafeel àdduna mooy nga ñëw bokk ci benn koor ba pare jël koor ba au lieu nga respecté ko def la koor ba wax ak la bind ni koor bi nii la war a toogee yow nga jalgati ko boo ko jalgatee nag mooy nga commencé indi benn cancer benn góom ca koor booba ñu dem ba kenn dootul xàmmee lan mooy dëgg ak lan moo dul dëgg parce que mag ñi dañuy wax ni bu coow baree rek dëgg day daal di réer te benn dëgg rek moom te yàlla ko moom kon nañu fexe bay sàmmonte ak àqu suñuy liggéey boo xa waree xëy waxtu ñëwal waxtu Marie Joséphine ñëpp xam nañ ci loolu mooy jëkk ñëw mooy mujje wàcc li ñu wax ci moom feebar na sax te jëlul congé loolu mooy dëkk nit ki dafay teg àqu li nga xam ne daf ko signé ni moom mooy liggéeyam waaye liggéey mënta ànd ak tappale liggéey boo waree liggéey liggéeyal boo demee ba nga xamee nag sa wàcc jot na nag demal jël li nga xamee sa njaboot ko moom nga jox ko sa njaboot booy def leneen nga defi leneen mais liggéey mënta ànd ak tappale liggéey boo gis tam dafa tegu ci yoon dafa tegu ci cadre dafa am lu ko organiser parce que lu ñu organisé wul baaxul Serigne Cheikh Tidiane mooy wax ni dëgg gu ñu organisé wul neen gu ñu organisé day ñëw màbb ko kon yàlla nañu yàlla musal ci bañ a organisé boo bokkee nag ci koor da ngay fexe ba koor ga la mu laaj ci wàllu organisation ci wàllu jëflante koor ba nga taxawee noonu parce que loolu mooy sauver suñu réew. organisation boobu itam seedeel nañ ko Marie Joséphine ci liggéeyam ci xëy na boo ñëwaan di ko euh, seet ci ay document wala ngay wër loo xam ni réglement intérieur la laal euh, euh, président Doudou Wade notamment seedeel na ko loolu est-ce que loolu itam seetlu nga ko ci ci soxna si. mooy mooy li ma wax rek. xam nga loolu moom dañuy dugg ci ay détails. mais nit soo nee dafa organiser. Hmm. dafa xam euh, euh, lan mooy réglement intérieur ba boo bëggee génn wàcc règlement intérieur mu delloo la mm-hmm. koo koy mooy wu xam na ko mm-hmm. xam na ko liggéey na ko pratiqué na ko te ñun nag ñun sax dañuy xam lan mooy règlement intérieur parfois ñu bëgg ko contourner <laughs> parce que bu coowu politique dekkee dooto xool sax fan mooy yoon bi mm-hmm. mais nag moom chance am bi ñu amoon ci moom mooy dañuy delloo si ni ñu du noonu nii la te bu jaree xeex nag mu taxaw xeex dër ba nga dër fekk ko ci règlement intérieur bi ngi ànd liggéey loolu mooy li nga xam ne moo nekkoon gardienne du règlement intérieur elle est la du temple hmm. du du gardienne du règlement intérieur parce que moom du député mais dafa nekk koo xam ne dalay fàttali li mu lii rôlam mooy lépp loo xam ne ñoo ngi koy tabax ci assemblée nationale bi moom am na sañ-sañu ni nii lañ ko daan defee nii lañ ko war a defee wala bu fekkee binduñu ko mu ne ah ca la ma fekke de nii lañ ko daan nii lañ ko daan lijjante waaye xam nga député moom kenn mënu ko ilif moo ilif boppam waaye nag fàttali nit ki li nga xamee ni su ko defee loolu la war a def bu ko deful nga xaw nga xamal ko ni ko kon danga ngaa teggi charte yi ah loolu koo ko wax te muy wote ay loi kooku dina fexe ba jubal ba du teggi charte yi parce que man awma sañ-sañu ñu teggi chartu Sénégal loolu moo tax may wax ni bu ma kenn laaj ma commenté ci décision justice par exemple lu justice def wax ko ba pare man duma ci commentaire parce que dama naan ñoom dañu nekk ñoo xam ne dañu leen a dénk loola bu ñu watee loi yi ñoom ñu koy appliquer ñoom ña ko jàng di ko appliquer bu ñu waxee damay d'accord ca loola amu ci commentaire amu ci lu may dindi amu ci lu may def alors peut-être mooy nekk laaj bu mujj bi euh, soxna Marie Joséphine ñu bëri euh, wax nañu bi mu génne àdduna ne euh, assemblée nationale ñàkk na Bruno jaata am alors Bruno jaata ku nekk xam ko si rigueur ak lépp lu ci aju mais surtout ci jigéen bu taxawee taxawaay woowu lan nga jàpp ne moo ko ko may et que peut-être nga mun ko conseiller jigéen ñi ñu mun a ñu mun a aw foofu ba am taxawaay bi bi Marie Joséphine amoon. Ah, man jàpp naa nag en dehors de xam-xam bi nga xamee da nga koy jàng ci ay téere. jàpp naa ni li gën a caractériser nit mooy yar biñ koy yar ci biir kër ga mooy itam ñi muy nekkal influence yi muy nekkal ñan la nekkal ak ñan la daan jaxasool ba ñu mën ko soppi wala daal ñu bàyyi ko ci jikkoom soppi nag am na ñaari soppi am na koo xam da lay fekk nga doon xaw a jeng mu soppi la pour jubal am nga koo xamee dafa lay fekk nga jub mu ne ah yow da nga ñàkk fayda pour soppi la pour nga dëng yàlla nañ ci yàlla musal mais jàpp naa ni daal ci li nga xamee ni nii moom moo ko gën a gën a gën a dimbale wax dëgg yàlla du ko question xam-xam ak jàng may ca yar ba moo tax ñu mel noonu ak ñu mel ni moom soo leen di jugé da ngay sant ña leen yar xam ne ña leen yar def nañu ci ñoom jikko yoo xamee ni jikko yu baax xam nga dafa am ay valeur Fatou dafa am réew mi dafa am ay valeur yoo xamee nii mooy keno yi nga xamee moom balaa nit a dem sax di Euh, ñu koy waxal leneen muy jàngi xam-xam ñu naan euh, dafa aay parce que mm-hmm. euh, dem ni mu xamee droit wala ni mu xamee mathématique wala ni mu xamee médecine mm-hmm. dafa am loo xamee ni bu jëkkee ci yow du rëcc ba mukk te nit ki du ko fàtte ba mukk loolu nag mooy li am solo mm-hmm. moom lay wax ni dafa am instruction ak éducation éducation moom keroog ba ngeen may defal portrait naan yaa jaar fii jaar fii dama am na loo fàtte de. Mhm. li nga fàtte lu am solo la. Mhm. mooy ki ma yar. te kenn du ko bind booy def booy bind CV yi doo ko bindaale. Mhm. te ka la yar nag ak ci am solo. parce que ku la gën ku la yar rek moo la gën waaw. jërëjëf président ñu bàyyi la rek nga tàggoo gannaaw seede yu rafet yi ci soxna Marie Joséphine Diallo mi ñu doon waxtaanee tey. waaw xanaa di sant rek di gërëm surtout di leen euh, dellu delloo njukkal. ci li nga xamee émission la muy démb ngeen ñëw di ci wax euh, soxna soosu loolu nag defuñu ko pour moom parce que moom dem na ah génn na àdduna euh, jëfam ak yërmande yàlla rek moo ko mën a dimbali foofu mu nekk waaye nag dañ koy wax di ko seede pour ñiy dund tey parce que waxtaan bu nekk mi ngi adressé wu wala ñoo ngi ko jëmale ci ñi nga xamee ñooy jund tey parce que ñiy dund tey ñoo am solo. di ko dégg. Mm. man cee mën a sukkandiku ba defaraat seen jikko defaraat seen bopp pour yàlla dimbale leen. Mm. kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla boole ci jikko yooyu parce que yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla yàlla taggewu ko lu dul jikko jikko yu rafet yi mm. kon nañu defaraat jikko yi bu ñu gisee tam koo xam loo xamee dafa baax ci nit nañ ko jéem a taataan ba loolee baax ci moom ñun ñu jéem a jéem a suub suñu bopp ba méngoog loola ndax nag loolu rek moo tax euh, ñuy def ñuy ñuy ànd di booloo di daje même julli sax bu ñu koy def ci mbooloo pour ñu pour jikko yu baax yi ñu mën ko weccente loolu moo tax jërëjëf président Aymérou Gningue jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ginnaaw président du Wade bi nekkoon ci assemblée notamment en 98 moom itam ñu taataan ay seedeem ngir doole woy ko njukkal soxna su ràññeeku woon soosu di Marie Joséphine Diallo nekkoon secrétaire générale bu assemblée génn àdduna ay bés bële ngeen gis itam euh, njukkal lu am solo li ko président Moustapha Niass ak député yi ak ancien président yi sax delloo loolu wone ni soxna si ràññeeku woon na ci liggéeyam mais amoon na solo itam euh, fi mu nekkoon di fi liggéey ci assemblée nationale ñu dellu di ko ñaanal yàlla di ko jaal itam député yépp ak képp ku musa jaar si assemblée njabootam ak mboolem sénégalais ndaxte euh, ñépp la amaloon njariñ assemblée institution la boo xam ne bu doxee Sénégal yépp dañu koy yëg ndax am na njariñ kon mbokki seen émission dem ak tey la woon ci mi FM ñuy gërëm Diawo Diallo mi nekkoon si jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi mu ngeen ko teeluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm